ni noo ngi sant sunu boroom tabaraka wa taala di seede ne dee suñu jaamu kenn ku dul moom di saxal ne muhammad ibn abdillah jaamu bu yàlla di ndawal sunu boroom texeeg mucc ñeel ne ñi ko gëm te jaar ci aw yoonam ba bés pénc yàlla nu yàlla wërsëgal loolu mbokk jullit ñi maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal sunu boroom tabaraka wa taala di jëfe ay ndigalam te bàyyi mboole mi tereem sunu xutbab tey day jëm ci buntu buntu tooñ mbokk julit ni tooñ lu lislaam xaraamal la tooñ jikko la bu bon bu lu mën a màbb ab société la tooñ day lekk jaamu yàlla nit ki maanaam nit ki nga xam ne day jaamu yàlla ba noppi boole ci di tooñ kooku bu demee ëllëg yomal xiyaam def <coughs> day fekk ay jaamu yàllaam jeex tàkk ndax du ci am dara bokk jullit ñi ki gën a ñàkk nekk ci sécurité mooy tooñkat ki gën a nekk ci danger gën a moyen sécurité mooy tooñkat fanaanook ak ab tooñkat sax wuur société bi nga xam ne sax ay tooñkat dañ faa ne ñuy tooñante seen biir wala ku leen ëpp doole na ca kaw di leen tooñ société boobu dund fa wuur ndax fajar gu jot rek suñu borom mën na fa wàcc mbugal te mbokk jullit ñi tooñante gi bëri na lool ci réew mi jamono yi mag ñaa ngi tooñ ndaw ñi ndaw ñaa ngi tooñ mag ñi góor ñaa ngi tooñ jigéen ñi jigéen ñaa ngi tooñ góor ñi góor ak jigéen a ngi tooñ seen tooñante seen diggante ci biir kër yi am na ay tooñante ci mbedd mi am ay tooñante ba bitim réew sax ak tooñeen ak nga fa koo xam ne adduna bi yëppan ci noppi muy tooñ gi yahud ji di tooñ waa Palestine fekk la sa suuf bëgg laa jaay doole teg fa ay loi di la bombarder di rey say doom mbokk jullit nii suñu borom tabaraka wa taala nee na wala taxsabanna allaha gaafilan amma yamalu zaalimuun borom bi nee na bu leen yaakaar ne mukk man yàlla dama gëmm sama bët ci li tooñkat ji di def nee na kay li am mooy dama leen di yéexa rek bàyyi leen ñuy tooñ di tooñ ba bés bi nga xamante ne nii doomu aadama su fa ñëwee day buq ay bëtam ngir tiit bésub tiitaange gu reey ga borom bi nee bés bobu lay xaare togn kat yi te lég lég sax sunu borom ngir mu dal ci kaw ab togn kat du xaar ba yomal qiyam lool dina leer ci khutba bi yonent bi nee sallallahu alayhi wasallam sallam yàlla nee ya ibadi ay yéen sama jam ñi inni man yàlla di sen borom haramtu zulma ala nafsi dama aramal sama bop togn borom bi amut ci moom luy dagan ak luy xaraam waaye ngir mu wan la rek ne koo ëpp doole di ko tooñ man yàlla maa la ëpp doole koo féete kaw di ko tooñ suñu borom nee na maa la féete kaw waaye ànd ak loolee lépp man yàlla jombale naa sama bopp ak tooñ du ma tooñ niki noonu nag laa jël tooñ ma araamal ko seen diggante yéen jaam ñi kon nag bu leen tooñante mbokk yi tooñ dafa bëri ay façon dafa am ñetti façon tooñ yu am yoo xam ne léegi-léegi doomu aadama tàbbi ci ñetti façon yooyee bi ci jiitu mooy tooñ bi jàmm bi di tooñ boroomam tabaraka wa te loolee lañ ca jublu mooy bokkaale mooy tooñ bi gën a rëy zulmul abdi rabbahu tooñ bi nit ki di tooñ boroomam tabaraka wa taala mooy tooñaange gi gëna reuy ci xéti toñ yi toñ gogé moy bokalé moy yalla defal la xéewal ba nopi nga xéewlo xéewal yi dem sant kenen yalla mi la bind bu kenn wut ci sa biiru wajur wu jigen di la fa sam di la fa ar kenn mënu la fa fekk sang la ay safara ba ñu fekk la fa takal la ay téré bam som sa borom mu génnee la ci sa biiru wajur wu jigen nga gané ci aduna say waajur bu jigéen de wuti ay boggal deeg ay téereeg ca àll ba ñëw xaawal la takkal la jublu ci aar la ak tooñaange gu rëy la goo xam ne defal nañ ko ci la sàkk moo tax sama borom ne inna shirka la zulmun azim dëgg dëgg dëgg dëgg bokkaale tooñ gu rëy rëy la goo xam ne jaam ñi dañ ma koy tooñ ñaareelu xeetu tooñaange gi mooy tooñ bi jaam bi di tooñ boppam te loolu mooy mooy yàlla yi la yàlla tere nga koy def tooñoo yàlla defoko sa borom way sa bop nga koy def ndax moy yàlla yoyé la cey touru wala la cey soppé ko ci ay xeeti lor sa kaw lay delu wat motax sun borom ne faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah suñu borom ne amna ci jamm ñoo xamne ko xamne mom togn bopam rek lay def manam lépp luma tere ci mom lépp luma haramal ci mom bayiwuko samay tere da koy def bu dee jigéen bul meesu mu lànk di meesoo ko gerefaasu bu dee góor del julli mu lànk di faat waxtu juróom yi bul naan sàngara mu bañ di naan bul njaaloo mu lànk di njaaloo bul déglu musique mu lànk di déglu musique muy ay tooñaa nga yoo xam ne yaa ngi koy tooñ sa bopp te la ca mën a jeexee la ca mën a ñëw ak jeexin dal du dal du sa kaw ñetteelu xeetu tooñaanga nga gi te moo war a xutba bi moy togn bi ñuy tooñante sun digënde ñun jamm togn gu njëkk gi muy bokkaale yalla soko baye fi ci aduna bala nga faatu sun borom balla waye boko faatu walé mom yalla du la jéggal loolu wax yalla la borom bi neena na balé mukk ki faatu ci bokkaale ba du ma bal baal lo togn gi moy togn gi ngay togn sa bop ci def ay moy yalla koku sa yoo tuubé borom bi jéggal la borom bi dina la ko bal ñetteelu tooñaange gi mooy suñu biir nii ñun tooñante gi ñuy tooñante boobu nag mooy danger boobu moo garaw ndax boobu day day dafa doon boo xam ne borom bi tabaaraka wa taala du la ko baal lu dul ki nga xam ne moom nga ko seqal nga koy baalu mbokk jullit ñi doomi aadama yi dañuy tooñante ay xeeti tooñante yu baree baree bare bëri te suñu borom tabaaraka wa taala gërëmut tooñ gërëmut nit ki nga xam ne mooy tooñ moo tax borom bi rëbb na leen daal di leen dànkaafu menacé leen indi inna minal mujrimina muntaqimun loolu wax yàlla su borom nee na tooñ yi def leen attention man yàlla danaa fayul ñi nga xam ne ñoom ngeen di ñoom ngeen di tooñ mbokk jullit ñi tooñ de dina indi bekkoor cim réew tooñ mbokk jullit ñi dina indi dund gu metti ci aw askan mbokk jullit ñi tooñ day demal say jaamu yàlla tooñ mbokk jullit ñi dina tax borom bi wàcce mbugal cib société suñu borom nee na wa tilka alqura ahlaknaaha lamma zalamu wa na li mahlikihim mawida borom bi nee na loole ab dëkk la boo xam ne man yàlla maa leen alak lu tax mu ne ba ñu nekkee di tooñante seen biir ca laa wàcc mbugal seen kaw ma alak leen te avertiroon naa leen balaa ma leen di alak bokk jullit ñi suñ réew mii day dëpp ci ay at ci ginnaaw li fi nekk ci xeeti tooñante ak tooñaange jéggi na dayo ku xippul say banam ku ku gëmmul ku gëmmul lànk bañ xool lii xew wax dëgg ak yàlla ay xeeti tooñaange yu metti ay ñàkk a fonk àq ak yelleefi doomi aadama yu metti mu ngi réew mi feeñ na fàng na dàng nag te yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñoo waxoon ne dimbali sa mbokkum jullit buñ ko tooñee loolu xamees na ko mooy nga kër kër yi ba mu jot xaqam boo mënee jóg wax waxal boo mënee dox defal doxal boo mënee yëngu yëngul boo mënee loo mën a def defal ngir mu jot àqam ak yelleefam waaye bu tooñee it nag na nga mën a téye ci loxoom ne ko sëñ bi bàyyi tooñ tooñ baaxul kon mbokk julit ni sunu borom yonnatu bi alayhi salatu wasalaam neena mom ci jëm boppam da nan muslu ci ak tooñaange mom yonnatu bi alayhi salatu wasalaam yonnatu bi na wax nan a'udhu bika an azlama aw uzlam sa buy genn kërëm mom yonnatu bi nan ñaan yalla yalla na ma yalla musal ci may toñ wala ñu toñ ma yalla na ma ci yalla musal يونتي بي عليه الصلاه والسلام نانا تي اب حديث ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته يونتي بي نانا ليك ليك نك سونو بوروم سيطان اب طون كات تيم ريو جوخ كو كاتان جوخ كو دوله جوخ كو مبوله موين يي تخ موي گن دي مانا طون بوروم بي ديكو سيطان رك ملني كوكو فاتي موي طون دي اواسي دي طون بير يي دي دوخ موي طون كين دو واخ موم mel ni sax suñu boroom daa ànd ci li muy def borom bi ne léeg ma koy seetaan bàyyi ko noonu nee na waaye cëy moo ko jàppee cëy bu ma ko téye lam ñu du ma rëcc moo tax mu ne wa kadalika axzu rabbika ida axada alqura wa ahluha wa hiya zalima borom bi nee na noonu nag laay jàppe am réew bu fekkee ne ñoom ay tooñkat lañ benn borom xam-xam daa wax wax ju am solo joo xam ne noo ngi koy dund sun jamono ji jarul ngay xoli fu sawi ngir gis ko muy wax ju wer wax ju dëggu neena yalla yàlla sunu sunu borom tabaraka wa taala dana soqali am rew def fa barke ak natange xewal ya sawan bawan ku nek di ci gis bopam dund bi yomb buntu bunt boo fëgg mu ubbi loy def mu dox bu fekkee réew moomee dañoo respecté ak ak yelleefu doomi aadama justice ba tëdd ñaaxaanaay nee na réew moomee donte ay yéefar lan donte amul ay jàkka ay jumaa donte amul ay daara donte amul ay sëriñ nee na réew moomee suñu borom dana leen defal jàmmi àdduna moom dana ko am noonu waaye nee na réew moo xam ne fonkuluñ ak ak yelleefu doomi aadama yi kenn ku nekk bés bu jot mën nañoo violer say ak ak say yelleef. réew moomee justice ba tëddewul ñaxaanaay boroom xam-xam bi nee na réew moomee yàlla dina leen toroxal ci xiif gu metti ci dëkk bu dëgër dëkk bu metti dund bu cher dund yu jafe-jafe jafe-jafe donte réew ma dañ naan la ilaha illallah muhammad rasulullah mbokk yi loolu ñu ngi koy dund dama réew tubaab yi nga xam ne gëmuñ yàlla réewu tubaab yi nga xam ne diine amu fa boo fa demee di nga xam ne ak ak yelleefu doomu aadama moom ñoom ñoom ñooñu ci raw moom ñooñu ci raw xoolal suñ réew yii nga xam ne ajjuma ju jot lu ëpp million ci ay jàkka am na ku fay taxaw naan yàlla nee na ci bi nee na jàkk yi day fees ba ci biti ba ci mbedd yi fees jëndal nga xool réew mii nga xam ne koo gis rek am na ci kër diine gum jokk amub xalifa général bu fa toog mu koy déglu jokk ci moom réew mii nga xam ne bés bu jot ci loo yëg ak soo yëgul am na ay événement diine yuy am ci ay këri diine réew mii nga xam ne dañuy ndamoo léeg léegi suñu magu diine yi fi nekk di tudd seeni tur di ko ndamoo réew mii nga xam ne li fi nekk ci ay daara kenn xamut nu mu réew mii nga xam ne chaque at ñu mën a lim lu ma téeméer ci ay ndongo yu mokkal alquran di ko jàng di ko tey ñëpp di dégg réew mii nga xam ne bu guddi ma jotee doo mën a nelaw ngir ay ot parleur ay jàng yoo xam ne fu ne nit a fa ne di nekk ca la mu nekk jàppe ko diine réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ay diine ay jullit lan kon mbokk yi lu waral suñu réew mel nii waay lu waral réew metti lu waral situation mel ànd ak lu nu yàlla defal ci ay xéewal lépp loo xam ne bu jaaroon yoon mën ngaa toog muy dox réewu tubaab ya boo liggéeyee dund boo liggéey doo dund réewu tubaab ya maanaam tey bu ñu ko doon natt ci réew mi dangay gis koo xam ne dafa am salaire u chômeur dafa am luñ luñ jagleel ñi chômé ñi nga xam ne amut lu ñuy def ñu am luñ leen di daggal ci nguur gi di leen ko jox allahu akbar ñun fii waxuma boo liggéey doo dund de waaye liggéey bi ngay liggéey sax léeg-léeg du la doy lan cay amee du la ngir nga dund mbokk jullit ñi suñ réew mii bokk na ci luñ sonal dëgg dëgg dëgg mooy ñàkk a fonk ak ak yelleefu doomi aadama yi té lolu bala ngay tambalé ci état bi suñ digënté ñun suñ digënté ñun mo ñëk am problème boobay ndax réew la mo xamné dañuy dund mo xamné sa bu la kenn ci ñun jekkoo man la door ngir lek sa alal da koy def ci mécanicien ngay dem gara sa auto di dépanné pièce bu jar 15000 francs mo la 40000 lay jar ba paré nak taxaw la ñangal ci réew mi ngay dem waxaaleeg nit ngir mu tabaxal la sa kër ba nga fay ko ba noppi mu lekk sa alal ngay toppat ci ginnaawam ci réew ngay dem ñu jël terrain jàmbur jaay la ko bàyyi leen ngeen di yéeg a wàcc dem di ñëw ci réew mi ngay dem nga dem ci ab tribunal wala ci réew wala ci justice wala ñun ñu mel mu wóor ne lii moom jarul sax jël avocat ndax dëgg gi nga war a am yow ni mu leere waaye ah luy xew da ngay dem gis na yow sa àq ak sa yelleef dañ koy salfaañe réew mel noonu mënuñoo dund ci naataange manta ne manta ne aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu kana bil mu'minina rahima الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والوالاه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل من الصحابة وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام wa in kaana qadiban min arak rawahu muslim mbokk yi yonent mi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yaa dompat dara ci xaqi doomi aadama yaa ñoppati dara maanaam yaa jël dara ci aqu nit même bu fekkee aqu bi nga xam ne ñépp ko bokk muy mbedd mi mbedd mi nga xam ne ñépp ko bokk boo demee ci réew yi organisé bo yoré sa place dal la wax dal dal ñeme woko tek ci li mairie bi mom place mom boko amé sa cantine boko amé fi nga say bagage fi yëm moy liñ la jox ne cantine baa ngi nii lii say bagage dal la wax say dal la wax ñeme woko tek ci territoire bi mairie bi mom bo amé sa kër tabax ko ba noppi wo tiire balcon balcon la wax balcon waxuma la jël ab cantine ne ko dajje ci buntu kër gi wax ma loolu mais bal ko rek ñu ma woo koo tiire mu dégager centimètre jëm ci mbedd bi nga xam ne ñëpp ko bokk yooyu boo koy wax ci réew mel ne Sénégal moom dañuy jàpp ne kii moom vraiment daa metti wala day léeba ka léppoon demal ci marché bi demal ci kaw tali bi doo am foo dox amoo foo dox parce que ñi nga xam ne ñoo occupé loolu dañ koo occupé ba occupé waale li mbedd mi di dox te ki war a xeex loolu bu ñëwee day am fuñ jaar ak moom rek mu génn nopp mbir mi di te yenoon yonent bi nee na képp koo xam ne da nga coppati dara ci àq ak yelleefug doomi aadama yi loo xam ne bokkul sa àq yow waaye nga jël ko yonent bi nee na sunu borom waral na ci yow sawara maanaam boo faatoo sunu borom dana dugal sawara yemute nee na wa harrama alayhi naar wa harrama alayhi aljanna yàlla araamal na ci yow aljanna benn saxaaba daal di jóg taxaw mel ni ku tiit ne ko waaw bu fekkee nag lu tuuti la rek loo xam ne dara maru jaru sax tudd lu ndaw la rek yonent bi ne ko donte donte bopp soccu araak la araak soccu araak mooy socc yi ñuy tudde soccu araak boo ko soccoo loolee di feeñ ci kaw bopp bi noonu nga xam ne moom ngay joosa say bañ donte lu toll noona la boo ko jëlee ci àqi doomi aadama suñu borom araamal na ceew aljana boo faatu mu dugal la sawara mbokk jullit ñi fi may mujjee mooy xadisu Abu yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ñetti xeeti ñaan a ngi nii yoo xam ne saa buñ ko ñaanee yàlla yàlla nangu ko bi si jiitu mooy ñaanu ku woor ba ngoon jot muy dogu muy ndogu kooku bu ñaanee su borom nangu ak ñaanam nee na ak njiit lu maandu njiit lu maandu nee na kooku ñaanee suñu borom nangu ak ñaanam mu ne nag beneen ba mooy ñaanu ku ñu tooñ koo xam ne dañ koo tooñ mu ñaan yàlla yàlla fajul ko yonent bi nee na kookee bu ñaanee bu nee rabbanaa rek balaa muy àggal sax day am benn pigeon voyageur boo xam ne mooy këf ñaan bi naaw ak moom dam jëw jëm kam as jëm jëm kaw asamaan nee na bu àggee ci suñu borom ñu ubbil ko abwaabu sama ñu ubbil ñaan gi bunti asamaan si picc ma wala njanaaw la dem déposer ñaan gi ci borom bi tabaaraka wa nee na yonent bi nee na sunu borom day wax naan wa izzati wa jalaali la ansurannaka walaw baada hiin borom bi nee na damay maa ngi waati sama màggaay maa ngi waati sama teddaange maa ngi waati sama rëyaay man sama man yàlla danaa la dimbali yow miñ tooñ danaa la dimbali ci kaw ñi la tooñ donte léegi laa koy def tout de suite du ma ko yàggee sax am na ay xadis yu wér yoo xam ne nee nañu borom bi dafay nangu ñaanu ku tooñ même bu dee ab yéefar la maanaam ki gëmut yàlla ki nga xam ne du sujjóot mosta sujjóotal yàlla benn bés nee nañu bu amee ñaan bu ko yàlla di nangul mooy bu buñ ko tooñee bu ñu ko tooñee rek bu ñaanee yàlla yàlla nangul ko ñaanu ku ñu tooñ dellu day dal kon mbokk jullit nii moo tax ma ne leen dund ci réew mu mel nii mat naa tiit ngir réew mi ni fi nekk ci ak tooñaange mat naa tiit bés bu jot wax dëgg ak yàlla yal nañu yàlla yërëm waaye nekkuñu ci nekkuñu ci sécurité noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu sàmmuñu noo ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne moo am kàttan képp ku yor kàttan yàllaa la jox ci kàttanam tuuti nga yor ci féete ñëpp kaw noo ngi ñaan yàlla suñu réew mi day képp ku ñu nam xañ sécurité nam mu ñoo xañ ak dal nam mu ñoo xañ dund yal na la ko yàlla xañ yow maanaam yal na yàlla puus ci réew mi képp koo bëggalu jàmm bëggalu askan wa jàmm loolu yàlla mën na ko sunu réew mi ak réew mboolem jullit ñi ñoo ngi koy dénk suñu borom tabaraka wa taala di dénk askan wi borom bi tabaraka wa taala allahuma inna nastawdiuka sénégalana amnaha wa ahlaha wa thawratiha ya rabbal alamin allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaaha wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا